way borom kaala googe waral kaala yi kutal kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraaki su tey jii di sant ak muhammadun il muxtaar lam yaati misluhu wa laysa yaji mislun lahu عبد المختار لم يات مثله وليس يدي مثل له نعم سيدي مرامي من المولى أتاني بلا أذن بجاه شفيع العالمين جميل محمد وثقت برب العرش عبدا له به كل سؤلي هدياتنا تصفو لدى الله سرمدا وعنا مع داع إلى خفو زيددي هوانا انتهى للحق والحق ديننا ni nga ko daan xoolee rek ñu ngi ko tàmbalee ci ndigal lu jiitu li nga xamante ne amoon nañ ko ci Cheikh Salih ci 1994 mars 1994 mu joxe ndigal li sëriñ Afia ak ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon dem ci moom loola itam ba ko santaane mu nekkoon liggéeyu saytu rek ak taxaw ak taxawu jumaa ji ba mu mel ni mu war a mel rek ci ci lislaam loole ci la ñu woyal mu am yeneen liggéey yoo xam ne dolliku na ci setal jumaa ji ak fexe ba mu méngoo ak ni nga xamante ne noonu la war a noonu la war a mel ci lislaam boo boo boo nii ci pano bi ci topp rek da ngay gis yenn ci ay photo yuy firndeel taxawaay yooyu nga xamante ne daayira muxaddamatul xidma mi ngi koy amal ci barab bu sell bii nii bokk na ci fexe ba tàpp yi nga xamante ne moo fi nekk muy set lii ay jamono nii lañ ko daan def waaye jamono dox na ba ñu liggéey ak murid yi nga xamante ne fu ne lañ nekk ci àdduna bi te am yéene yi liggéey suñ tubaa ci jumaa ji bañ am machine boo xamante ne mooy raxas tàpp yi bokk na ci liggéey bi itam niñ koy dëppalee ak jamono barab bi nekk barabu ziar jamonoy koor rawatina murid yi di fi ñëw ñuy taxawal ndog yooyu nga xamante ne sag jàppale ak liggéey bu am solo ak ànd ki ngeen ci ànd ak ñoom daanaka danañ ci def lu tolloog juróom fukki million wala lu ko lu ko lu ko mat liggéeyu boobu bu koor gi itam dañ koy boole ak ay waxtaan ndax jàkka jàkka jàkka daara la jàkka yonte bi alayhi salaam moo nekkoon daara ji gënoon a di gënoon a mag kon yoon Sëriñ Tuubaa mii nga xamante ne mooy jawrinam ku ñëw ci jàkkaam itam war a jàng lu doy sëkk loolu moo tax ñu jàngale commission bi nga xamante ne ñoom lañ dénk wàllu googu di tànn ay thème yu ama am solo yoo xamante ne daanaka ci université yu mag yi boo demee ci anfi yi mënuñ laa jàngal lu ëpp xam ci li ñuy wasaare fii ci weeru koor woowu noonu loolu lu ama am solo la bu màggal gi jub see itam dañuy yeesalaat barab bi ndax mur yëpp seen jubuwaay day barab bu sell bi kon bu ñëwee war nañoo fekk mu méngoog ni nga xam noonu la war a mel moo tax ñi ngay gis ñu yéeg di dindi poussière yi ak di ko yeesalaat ba ñuy màggal si bu ñëwee ñu mën a ñu mën a ñu mën a am lu méngoog lu méngoog jamono ji waaye boo xoolee itam ci liggéey bi ñuy liggéey ci jumaa ji itam bokk na ci di def assistance assistance mooy fexe ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñëw ci wàllu faj ba am na benn infirmerie boo xamante ne def nañ ko fi yàggu dara ci sa jàppandal ak mboole ñi nga xam ne boole nga leen ci ñu ci ñu liggéey ko daa mel ne ñëwoon nga fi ba ba ba seet ko ñu ngi ciy liggéey ak mboolem docteur yi nga xamante ne ñoo ne ci dëkk bi ci district yi nga xamante ne ñoo fi nekk am na itam ay docteur murid yoo xamante ne dañ fi ñëw di fi liggéeyal Sëñ Tuubaa boo xoolee ci journée xasida bi jàll rek daanaka lu tolloog ñetti téeméeri nit jot nañ leen fee wallu ci am paj ci màggal gi itam wallu nañ lu bëree bëri ci ay nit am na ambulance boo xam ne moo fi nekk H24 mooy ci ñaar fukki waxtu yeeg ñeent yëpp ngir képp koo xamante ne daa soxla soxlawoo yittewoo ñu génn ko fi ngir yóbbu ko ñu mën koo yóbbu te du am benn jafe-jafe fu mbooloo di dajee nag loolu dafay am solo lool. boo xoolee lii mooy santaane liggéeyu jumaa ji nag ñu dàmbalee ko ci histoire ca fa nga xamante ne moom la Sëñ Tuubaa njëkkoon a bind muy leetar bi mu bindloo woon Sëñ Mbàkke Buso ci tàggoo ci liggéeyu jumaa ji eh, bindloo ko woon daanaka lu jiitu 1925. ca nam dajale woon xaalis ba boo xoolee lii nii ay kuréel la yoo xam ne ci biir jumaa ji lañ nekk lu mel daara kaamil eh, ak ak ay yenn foto yoo xamante ne ay photo yi eh, ay photo yi cosaan la yoo xam ne jumaa yi Sëñ Fallu ji na mu meloon ba mu ko ubbi 1963 boo xoolee yi ci suuf nii di ay photo nii mooy imaam yi nga xamante ne ñoo fi mas a jaar day mel loolu wax nañ ko ay yoon yoon bi nga xamante ne sëñ bi santaane ko 1925 bi mu fi jógee 1927 itam Cheikh Modou Moustapha moom tamit taxawaay bu am solo bi nga xam ne taxaw na ko ci jumaa ji moom itam tàmbal leeral nañ ci lu am am solo loo xamante ne tàmbale nañ ko ci ak dundam moom xam ne ak dundam moom mooy lan waaye indi ab liggéeyam bi mu doon liggéey Sëñ Tuubaa bokk na ci lim ko liggéeyal ci alxuraan waaye itam ni mu daan waaree murid yi ci woo gim laan den woo ñuy ñëw raay bi itam wax nañ ci wax fondation jumaa ji nim ko defee wax ci Eh, lii nag ay photo illustration la waaye gëstu bu yaatu lañ ci def boo xamante ne document yi mi ngi fee ca ay tableau yoo xamante ne bind nañ ko boo xoolee moom bi fi jógee 45 sëñ Fallou moo ko wutu sëñ Fallou itam daal di eggale fondation la ñuy wax ci sëñ Modou Moussa waaye yëkkati woon na ko ba mu egg ci kuule ba yëkkatiwaat sëñ Fallou moo ko mottali moom itam xam nga guerre bi guerre mondiale bi dox ci diggante 39 45 xawoon naa am jafe-jafe tuuti waaye teewut murid yi ak seen pësteef ak seen jaayu. crise mënu leen a tee moo tax liggéey bi Sëñ Tuubaa bi mu leen santoon te ñoom fekke woon nañ ba Sëñ Tuubaa di wax nekkuñ ci jàpp dootoo réer ba faaw moo tax wax nañ ñaata la ci def moom Sëñ Fallou indi ay photo yoo xamante ne moom la ko ubbee photo bee nga gis mooy bi nga xamante ne la 7 juin 1963 ci la doon ubbi jumaa ji. asalaamaaleykum wa rahmatulah. bi ñu ngi lay dalal bu baax di wéyal fi am di taxawee rek muy lu ci taarixu jumaa ak liggéey yi nga xam ne fi la ko sëñ Fallou bàyyi woon bi nga xam ne sëñ Abdoul Ahad Mbacké ñëw la tamit. moom li ko tàmbalee 1969 ci la njëkk def ab euh, leeral jottali murid yëpp yéen ñi nga xam ne am na ko ci jumaa ji mu yeesal bu njëkk yi ak taaral bi ak 1971 tamit mu defaraat miir bi nga xam ne war wër jumaa ji ba ci 1987 mu wax liggéeyu yokk bi ak yeneen liggéey nga xam ne def na ko lépp ci dëkk bi ak ci jumaa ji mel ne daaray kaamil bi ak ñu raxmati ak ci aju lépp loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy gaaral fii euh, liggéey suñu Abdou Lahad Mbacké ak suñu Abdou Khadir dañoo lëkkaloo moom la ñuy tënke ci maxarat bi ñoom la jàppee mooy ñeenteelu état bu liggéeyu jumaa ji ndax ñoom ñaar dañoo bokk jamono Cheikh Abdou Lahad Mbacké joxoon lépp lu aju ci wàllu diine ji ak jumaa ji dénk ko Cheikh Abdou Khadir Mbacké moo taxaw imaama gi lépp loo xam ne war na ko ci liggéey tamit mu ciy diisoo ak moom ñoom ñaar seen seen seen seen i yëngatu moom la ñuy gaaral ci ñaari barab yi Cheikh Abdou Khadir Mbacké ni nga ko xamee moo nekkoon imaam ci jamono ginnaaw Serigne Fallou ba 1990 muy année bi mu wàccee liggéey état bi ci topp muy jamono Cheikh Salif Mbacké moom tamit mu nekk xalifa diggante 1990 ba 2007 moom tamit ni ko magam yu baax yi jiitu defe woon rek noonu la ko defe jaar seen tànk euh, tàmbali njëkk taxawal lu aju ci yasalaat jumaa ji mbubb mu bees mi nga xam ne moom la sol jamono ji lu ci bari moom moo ko fi bàyyi woon ak yeesalaat yeneen yi nga xam ne def na ko ci lépp ci liggéey jumaa ji loolu moom la ñuy leeral fii sëriñ Boussa Ilimane gannaaw bi moom moo gaaral sëñ Fallou sëñ As Jaxate sëñ As Jaxate boobu ba léegi mu nekk fi di fi def liggéey bu am solo ci gëstu bi leeral nañ téere yi ñu fay jàng programme bi ni muy demee ak ña ëpp solo ca ña fa jóge jërëjëf Abdoul ngi lay nuyu baax di la ziar di ziar sëriñ Afia di leeral ni lii mooy stand bi nga xamante ni moom la daayiratu Rawdu Rayaahiin indi ci exposition ren bi ci njiital Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamante ni moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu àlla ña asaqafiya ni nga xamante ni noonu la ñuy ànde ànd kook daairatu muxaddamatul xidma ci njiital Serigne Afe ak association écrivain mouride yëpp ren jii ñu indi woon téere yi nga xamante ni daayira bi mool na ko tàmbalee ko ci téere yi sëriñ bi bindal boppam te benn jiitu ci masaalikul jinaan ak mawahibul quddus ak jawharun nafis naka noonu tamit indaale nañ mbooleem jàngat yi nga xamante ni dafa aju ci yoonu murit mooy diraasaat xawlal muridiya ak ñeenti waxtaan yi nga xamante ni at yi yëpp yàlla dogal def nañ ko waaye indi nag bu ren bii nga xamante ni moo nekk waxtaanu ren wi dëppoog al islaax wa tajdiid inda cheikh al xadim fikran yeesal ak joyante gi sëriñ bi def ci wàllu xalaat ak ni nga xam noonu la ko jëmmale waaye nag biñ ci noppee gaaral nañ tamit abdullahi wa qadimu rasulihi bi nga xamante ni alhamdulilahi rabbil alamin baneen bi ci topp nga xamante ni moom ci ndigalul kilifa yi lañ ko amee mooy mooy subahaat mooy lënt yi ak njuumte tey ñu def ci murit gi ak sëriñ jëmm sëriñ bu mag bi ñu tontu ñi nga xamante ni dañoo yàgg a teg ay tooñ ci yoon wi ak ay njuumte yoo xam dañ koo bind ci yoonu murit yàlla def na bii mooy bu njëkk bi ñaareel bi noppi na ba ma nga ca fan koy moole incha allahu taala bala ñuy egg ci gàmm gi dina egg si yeneen yi ci des nag mooy lenn ci ndénkaan yi sëñ yi ak xikam yi waaw alhamdulilah naka noonu tamit min fatawa yi nga xamante ni sëriñ bi daan na ko def kon daal Cheikh Mahamadul Bachir yi mooy yi nga xamante ni moom lañ indi woon waaye nag Cheikh Mahamadul Muntaxa dafa sàkk woon ci rawdu at mu jot muy génne ab majala bii nag moom mooy nekk yoon wu njëkk yi nga xamante ni ci dañ ko defee mooy majalatu rawdu bi bële ci mujj mooy livre blanc bi nga xamante ni waaw bii mooy bi ci bi ci njëkk bii bu daaw woon bu ren bi yàlla dogal xataayu liggéey bi moom moo tax noppiwul bii nag mooy livre blanc bi nga xamante ni waa histoire générale dañ ko defoon te yàlla dogaloon ñu defoon ci ay njuumte yu rëy ci jëmmi Seexul Xaddim bi ak yoonu murit ñu tontu woon leen bu français bi moo nekk nii bu arab bi ñu ngi ci di liggéey ko defee lii mooy li nga xamante ni moom lañu indi waaye ñoo ngi sant bu baax ci boole gi ngeen ñu boole ak daayira muqaddamatul xidma ñu àndu ñëw ñu dalal ñu ci njiital sëñ Afe ñoo ngi ci sant bu baax a baax di ñaan liggéey bi yàlla nañ ko gën a mën di ànd ci barkeb Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu sunu kilifa gi toog sëriñ Afe Bousso di la nuyu itam ci turu daayira muqaddamatul xidma yëpp waaye di la nuyu ci Serigne Cheikh Mbacke ña ngi teewal leen fi di leen nuyoo itam ci kuréel gi nga xam ne moo lëkkale bindikat yi yoonu murid bi te Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Mountakha jiite leen te ñu teew fi nii tey di la jëbbalaat liggéey bi ni ñu ko baaxoo defee at mu jot bu ñu ko tàmbalee ba bi fii danañu daje and ak ñi nga xam ne ñoom la ñoom lañ doon liggéeyandool ci màggal gi muy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir jumaa ji ak fu ñu fa mënoon a nekk ak ñi nekkoon ci barab bi ñi doon taxawu julli yi ñi doon setal ñi doon nekkoon ci waañ wi ñi nekkoon ci rang bi ñi nekkoon ci fajukaay bi ñi nekkoon ci exposition bi ak foofu mën a nekk dégg nga léegi ni la ko sëriñ Abdou Lahad waxee nga xam ne lim bi takk woon na lool toll na ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñooñu ñëpp nag lenn rek moo leen feddi muy sàkku ngërëmul sëriñ Touba ci parce que ne liggéey itam ci barabam bu tedd bii liggéey boobee nag ñu di xamal ne ñun ñi nga xam ne ñun lañ ko àndaloon day ñu ngi seede ne liggéey nañ ci seen kemtilaay kàttan ngir jéem koo dëppale ak li nga xam ne mooy bëgg-bëggub sëriñ bi façon nañu yéene bañ fiy teew lépp lu sëriñ bi bëgg ñu dox ñu doxee ko fi ku fi mën a ñëw rek doxee noona lépp lu sëriñ bi di bañ kenn du ko fi andi loolay taxaw nañ ci seen kemtilaay kàttan ba liñ ci seen yëg-yëg gisuñu lenn lu fi xew ci yooyu nga xam ne sëriñ bi bëggu ko fi te ni fi sëriñ bi bëggee noonu la fi ñëpp nekkee woon bu liggéey bi nag nga teew ci sunu kanam teewal fi sëriñ bi te sëriñ bi moo fi sëriñ Touba ñu ngi lay jébbal liggéey liggéey bi di la jébbal liggéeyu mboolem ku nu àndaloon liggéey bi ba ci sécurité bii nga xam ne ñoo taxaw nii ci sa ginnaaw te soo noppee danañu nuyoo incha allah muy ki nga xam ne mooy police yi nga xam ne ñoom lañu affecté woon fii leer naa bi ak ñi mu àndaloon ñi yore liggéey bi ñun ñëpp ñu maase jébbal la liggéey bi tey jii di wax ne mboolem daayira yi fi teew yëpp ak mboolem kuréel yi fi teew yëpp benn bëgg-bëgg rek lañu am. benn bëgg-bëgg rek lañu am lañ ci am te mooy ngërëmul sëriñ Touba ndax xam nañ ne fu dara nekk rek ngërëmul Serigne Touba moo ko fa def ngërëm loolu nag moom la ñuy sàkku di fas di ko ci fas di sàkku nga fasal na ko ci te te ñaanal na ko ci. ñu nit nag ñu ngi ñaanal Seex mun Mountakha sunu borom yàggal ko fi lool mu mottali ay yéeneem yëpp te nu ànd kook moom. yow mii nekk ci wetam di ko jàppale itam suñ borom kattanal la musal la aar la sàmm la mottali sa yéene ci moom mottali sa yéene ci liggéeyu Serigne Touba bépp. di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp di Serigne Afia Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak Serigne Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo jiite association académie association écrivain Mouridia di nuyu tamit daayira Rawdu Rayahin Euh, sëriñ Cheikh Mbacke Niang teewal leen fi liggéey bi nga xam ne moom lañu àndoon di ko def ci biir màggal gi muy ci exposition bi nga xam ne def nañ ko fi ngir gaaral fi histoire jumaa ji ak euh, ñaari kuréel yooyu nga xam ne ay bindikat dañuy bind ci yoon wi moo xam ci fànn gu nekk nga boole woon ñu ñoom daaw ñu tàmbali di ànd ak ñoom fii ci exposition bi leeral nañ la liggéey bi ci biir fii nag dañuy lay leeral ngir liggéey bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi koy def a jekk rawatina su màggal gi ñëwee mu rawati mbooloo mi nga xam ne ñoom nga jàkkaar lool di lenn ci ñi nga xam ne doon nañ ànd ak ñoom liggéey bi ak ñi nga xam ne yewiku nañ daayira Muxaddamatul Xidma nag euh, liggéey bii nga xam ne moom lay def ci màggal nga xam ngeen ne dafa yaatu moo tax dafa ubbiku am na ay silil ak ay dayre yoo xam ne ñenn ñi euh, dañoo ñëw ngir tàbbi ci liggéey bi ñu man cee ràññee daayira muxaddamatul xidma bu Louga ak ilhaamu latiful xabir bu Touba Ngoy daayira xidmatu rawdu bu dakaar ak euh, daayira tamit xidmatu rawdu bu Dakar muxaddamatul xidma bu Louga ak muxaddamatul xidma bu Touba irhamu latiful xabir daayira safinatul amaan muxaddamatul xidma Dakar daayira safinatul amaan eh, muxaddamatul eh, xidmatu rawdu ak wakaana xaqan ak daayira xidmatul masalik ak daayira 18 safar bu xoolee nag daayira yooyu ak seeni njiit ñoom ñëpp ñu ngi fi xanaa ñu tudd leen tudd bu gaaw rek muy ilhamu latiful xabir Baye Assane Yadd jiite ko xidmatul masalik euh, Tayba Ndiaye ak Ndiame Cissé jiite ko wakaana xaqan sëriñ Moustapha Diop daayira fatul xabaar sëriñ Alhaji Seck ak sëriñ Sayar Ndiaye xidmatul masalik euh, sëriñ Bamba Silla xidmatu rawdu sëriñ Balla Diouf safinatul amaan sëriñ Modou Guèye asfori xidmatul xadim sëriñ xaadim muxadimatul xidma Louga sëriñ xaadim Sow Taysir euh, muxadimatul xidma Dakar sëriñ Góora Sow Lamp Fall sécurité Ibrahima Cissé boo xoolee ñooñu ñoo ñëw tàbbi ci liggéeyu daayira muxadimatul xidma daayira bu nekk dafa indi mbooloo soo totaalee ñi nga xam ne doon nañ liggéey ci biir màggal gi Euh, séddale ko ci ay commission muy commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu sécurité ak ñi yor wàllu rang yi ak ñi yor wàllu cet gi ak ñi nekkoon ci waañ wa ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci commission culturelle bi ci exposition bi loolu lépp boo ko xoolee deux mille deux cent cinquante deux personnes lay doon maanaam ñaari junniy nit ak juróom ak ñaar ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar doon nañ liggéey ci jumaa ji ci màgg màggal ñoo ñëpp nag euh, daayira bi moo leen couvriroon ci lu aju ci wàllu seen li doxal seen mbir lépp ci magal ci bernde yi ak yëpp ñu bëgg di doon leen berndeel ngir bëgg ni ñuy berndeele ci ci seen i kër ñoom it ñu koy dunde fii ci magal ngir ñu man ko ndax liggéey bi dafa yaatu ndax 24 sur 24 lay doon banqaas yi nga xam ne moo nekk ci daayira bi yëpp yëpp yëpp dañ doon dox ci biir magal bi muy commission culturelle bi commission organisation commission social ak santé euh, gis nga district bi nga xam ne ñoo ngi fi barki démb tamit visite ko ak liggéey bu yaatu bi nga xam ne am na fa ak docteur yi ñu koy àndal Euh, loolu tamit sëriñ bi nee nañ jot li mbokk yi ci doon jàpp muy euh, ñi nga xam ne ñoo doon jàpp ci infirmière bi muy docteur Ndeye Maguette mi nga xam ne moo jiite district bi docteur Abdoulahat fay mi nga xam ne moo doon jiite ñi doon jàpp ci wàllu privé bi médecin privé yi ak mbooleem ñi doon jàpp ci garab yi keroog bi nga ñëwee defoon nga appel ci laaj mbooloo mi ngir ñu indi ay garab euh, ndax soxla gi ñu koy soxla loolu it wuy si nañ ci bu baax ndax Euh, seen président pharmacie yi di Serigne Mor Thiam ak euh, sëriñ Abdoul Aziz Thioban def nañ ci liggéey bu rëy rëy waaye di ci beral cant professeur Daouda jaay moom it indi na fi ay garab yu bëree bëree bëri ak bira euh, waa Diourbel tamit ñi nga xam ne muy pera Diourbel ci njiital sëriñ Serigne Mouhamad Mahmoudan loo ñoom it indi nañ fi ay garab kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma doon nañ ko def ci biir màggal gi di ko ànd ak mbooloo yi nga xam ne tudd nañ leen muy liggéey bu yaatu yow nag yaay jëwri ni magal gi jiite comité d'organisation bi jaadu na boo ñëwee tamit ñu leeral la liggéey bii nga xam ne doon nañ ko def ci biir magal su ko defee kàddu gi dañu la koy dañu koy jébbal euh, sëriñ Afia Bousso mu dalal la euh, yëkkati ay kàddu su ko defee bu ñu noppee ñu jox la kàddu ngir waxtu wi jege na. mboolem njabootu sëriñ bi ak ci turu mboolem taalibe murid yi képp koo xam ne bëgg nga lu baax. ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne mosu lañ di ko taxaw ci lépp loo xam ne daar lépp loo xam ne yoon wi itti woo na ko euh, muy ci biir muy ci bitti muy ñuy def mbaa lu ñuy wax mbaa lu ñuy joxe lépp loo xam ne itti woon na ko rek ñëpp xam nañ ci sa itte ba mu mel na mu war a mel kon loolu ñoo ci ak cant ci turu mu murid yëpp mu njaboot sëñ gi ak ci ñun taalibe yi ak ci ñëpp ñaan su ma doole sa taxawaay bu baax a baax a baax su borom musal la te aar la bàyyi la sa xel ba lépp loo yéene nga mën koo defee nu kawe ni ko bëggee rawatina nag ñun darat Moukhaddamatoul Khidma ñun moom dana beral loxo ndax xamuñ sa xat-xat xamuñ sa itte xamuñ sa tàng na xamuñ naaj na waxtu wu ñu la soxlaa rek nga bàyyi li nga nekkoon ak lu mu farata farata ñëw teew ci suñu kanam jot li teew ci kanam ba ba nopp ci yow loola moom kon suñ tuntu bopp la koo xam ne ñun daayira bi ñoo ko war loolu di ko sant nag bu faw nga ñaanal daal euh, suñu borom dool laa sàmm ba at mu jot rek mel nii ndax alhamdulilah am di wa shukru bu ñu ko tàmbalee tafu ba léegi dañuy wax ne at mu jot dañuy wax rek ne nii mel mësunee mel kon loolu ak cant la te bisu màggal gi di bis boo xam ne bu sooxee lu bari sooxee su jegee lu bari jag yàlla nag mi lay tawfeexal ba ab yor dañ naan ren jii li gën a réussir kon loolu yàlla ñu jëm kanam ci barke Borom Tuubaa amoon a yéen a yëkkat suñu kàddu bu baax nag waaye tey wér gi daf ko mayewut moo tax dañuy jotli kàddu yooyu rek da jox seen abdoulaad mu mottali mottali ko ma koy ñu sant bu baax tey gërëm te ñaan Cheikh man mun yàgg fi yàgg laa liggéeyloo nga yàgga def yàgg ci am ndam lu mel nii ci am ba faw ba faw ba faw barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sëriñ bi nag waxtu wi daaw dañu laa dañoo waxoon fii suñuy bëgg-bëgg ndax bu ko taalibe yi déggee rek mu mën a wu ndax ñoom liggéeyal sëñ bi rek la ñuy wër muy bi nga xamee ne soxla nañ machines yi nga xam ne ci lañ doon nettoyer moquette yi ren jii nag li nga xam ne moom ñi ngi koy sàkku ci ñaan te di ko soxla it ngir ñi ñuy seetaan mooy benn oto mbalit boo xam ne day nekk ci loxol daayira bi saa su nekk mbalit mbalit miy wër jumaa ji day bëri te ICC mi nga xam ne ñoom la ñuy jàppalanteel jàmbaar lañ lool ci liggéey bi waaye daayira bi am oto boppam boo xam ne mbalit mu fi nekk mu mën koo jël am na ci solo beneen bi mooy benn oto dox boo xam ne daayira bi daf koy am ndax xam nga ne bis yëpp dañu nettoyé te karo yi yaatu na bu leen di mën a indil di leen rootal ndox di leen duyal bërigo yi nga xam ne ñoom la ñu nettoyé jumaa ji yooyu yëpp it day ay bëgg-bëgg yoo xam ne ñu ngi koy sàkku ci e, fu taalibe nekk ngir ñu mën koo indi muy jumtuwaay yi ñuy setale ci jumaa ji ci ñaar yëpp kon ñu jébbal kàddu gi sëriñ bi sahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin waliyi salihin wal aqibati lil muttaqin allahuma solli solaataka alkaamilata alchaamilata ala sayidina muhammadin rasulillah nuuri aljamali wa tuuri alkamali wa mustawdai sirri aljalali wa arni tolaatahu albahiyata fi lhaali walmaali wa ala alihi wa sallama tasliman misla dalika wa munna alaya bilwisal wafta alaya futuhat alrijal wa radi allahu tabaraka wa taala an abdihi alqadim wa an jami awliyai walsalihin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu سماحة الشيخ الناطق الرسمي للطريقة المريدية الأحمدية المباركة في مدينة طوبى وأمم العالم أتقدم إليكم بهذه الأبيات التي كتبتها ارتجالا في هذا المعرض راجيا من الله تبارك وتعالى القبول وقلت لله جل أولاه هذا المعرض fiihi nafaisu qaaba anha almuridu fiihi wa aymullahi taarifun liman wullu xilaafata man li rabbihi yanhadu wa rasailun maxtuutatun li aimmatin an haadihi dunya daniyati aradu wa muallafatun fi hayaati mujaddidi lislaami ahmad bamba zaaka mufawwidu lillahi amrahu kullahu subhanahu xaaba mruun wallahi anhu anhu yuridu wa shukru libni cheikh abdilqadiri qasdi muhammadul bashir almunhidu bi tariqati cheikh alqadimi haqiqatan yahya muhibbukumu wa yarda almubgidu summa alsolatu ala annabiyi muhammadin maa qaala yuusufu nima haza almaradu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Xaafiya Buso al imam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di la kàddu yu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu fii sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñu di ko ñaanal bu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mottali mbooyam naal ak sumb yi nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa di teg nuyoo bi mu jëm mu jëm ci mboolem daaira muqaddamatul xidma sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm ci yitte ji ak positif bi ak taxawaay bi waxtu wu ne day faral di waxee li gën a jafe nag mooy yitte yenn jàll defar na ko ndax liggéey bi 1994 ba mu duggee ci seen doxo ba nëgg ni si dana toqi musu dana tayel si dana dellu ginnaaw bu ngeen xasee engagé ba nëgg ni waxtu ne yéen gën a sellal seen liggéey di gën a ñoŋal liggéey bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant leen gërëm di leen sant itam ci li ngeen ñoo nga leen penc mi ak jumaa ji ndax barab bii kat fële suñ lépp nekke fële suñ jaakaar àddina ak alaaxira nekk kon barab bi ñëpp ko war a wormaal te nit ñi day def luñ meen rek worma jëlaan ci war day des yéen nag taxaw ngeen ci tàggat ci nit ñi def ci fulla ak fayda ba kenn ñemeetu fee def dara lu dëppoo barab kon loolu mooy di jiitu cant yi la ca des it jàkka xam ngeen ne dafa am lu laaj ci wàllu taxawaay ak nos ko ba séparé góor ñi jigéen ñi ñii di dugg fii ñii di génn fee sàpp yi ni ko lislaam santaane lépp ngeen di ko taxawu boole ci di ko setal ak di ko nos ak waxtaan yi nga xam yéen ak fii def yëpp kon seenu liggéey du liggéeyu màggal rek waaye at at mépp la lu ne yéen a ngi ko def lépp lu ngeen jàpp ne mooy taar jumaa ji wala moo koy rafetal rek guddeeg ba ci yéen a ko gëstu di ko def kon sëriñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm di leen berlu cant itam ci liggéeyu màggal Tuubaa gi ñu génn ndax jumaa ji mooy jubluwaayu murit yëpp kon liggéey bu jafe la ndax foo xam ne ay millions yi ñëw fi ñëw ci diiru ñetti fan loolu yombut a lijjanti mm-hmm. neexut a waaye ci seenu dogu ak seen taxawaay ak seenu mën a nos ak déggoo tax na ku agsi man a siyaare te góor ñi jiyee ñu duñ daje ba ñëpp jeex ak jàmm mhm. kon loolu mooy di jiitu cant ko ndax ca doole ko waat mooy gane Serigne Touba yi nga xam ne ñu ngi leen di taxaw ci ñaari kër Serigne Touba yi mhm. wóotuñ ci wóotuñ ci sëriñ bi mhm. di ko taxaw taxawaay bu gën a rafet ñu la koy seereel kon cant gi ak ngërëm di daal dañ koy dañ koy dañ koy jottali waaye nag dañ leen di bàyyi Serigne bi nga xam ne moo tax ngeen futtiku bàyyi seen lépp dëddu lépp nekk ci moom amut leen solo ci leen yàlla na Sëriñ Tuubaa bi ngeen di jëfal nangu leen ko te eh, rafet nañ jox ci Sëriñ Tuubaa nangu la kon yàlla na yàgg ci seen i loxo leen yàgg koo taxawu léegi sëñ bi laxat bu sa wax léegi tam kon xam naa yitte jumaa ji moom ko murid ji déggee gëm naa ne du taxaw mooy oto bi nga wax ak oto ndox bi incha allah xam naa ndigam yëkkati ngeen ko moom fi saasa daal nit ñi dañuy njëkkante ngir xam lu jumaa ji soxla ñu def ko. Hmm. kon jàpp naa ne balaa fan yu néew ay nit dana ñëw sa soog bu ngeen neexee sax mu ëpp kon ñu ñaan bu baax a baax. Hmm. ñu teew fi na gën déwén jàmm. mboolem dawaa ir yi dañ doon jàppale ci liggéey bi itam. Hmm. ci togg yeeg ca taxawaay bi yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew mi itam ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ak ci daraja bi si yàlla Serigne Touba nangu leen seen liggéey ñoo ñëpp. ku fi indaale woon aajara suñu borom faj ko ku fi indaale woon jàngoro suñu borom saafara ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bay borom kaala waral kaala yi ku kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraaki su sant